yaa rabbana habli bi haqqil kawsari yumnal hayaati wa ujuuri kasiri taala wa barakaatuhu ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp ci turu Sëriñ Hamsatu moom Sëriñ Suhaybu jataay bi li ko waral mooy ndigal li nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Mountakha da ko joxe muy njàngum xasiida ak alquran te jaar ci Cheikh Basir moom Cheikh Abdul Xaadir ak sëñ Xabaan moom Cheikh Mawal Xaadir ak ci mboolem taalibe yëpp sëñ Xamsatu di ci soññee ci taalibe yëpp rawatina ñi nga xamee ne ñooy yëngu ci xasiida yi ak nuñ ci mën a yëngoo ak fuñ mën a nekk di woo ñëpp ci ndigal loolu ngir bëgg ñu defe ko ni ko sëriñ bi diglee xam naa sëriñ Aliou Diop dana dikk leeral ni ñu ko war a defee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe murid yi waa ahlu xasaayit ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bi ñu bàyyi ko di amaan mbégte ci ndigal li nga xam ne bàyyi ko na Cheikh al Xadim muy Sëriñ Muntaxa jaar ci jëwriñam Cheikh Ahmadul Bachir moom Cheikh Abdul Xaadir wàcc fii ci en loo xasaayit ci Sëriñ Amsatu Mbakke bi mu jaaree ci Sëriñ Xaban Mbakke moom Sëriñ Fàllilu Mbakke mu mel ne Sëriñ Muntaxa daa dégg sëriñ bi ndax Sëriñ Saaliwu mos na maa wax ne ma sëriñ bi de buñ ko doon misaal ak buum lañ koy misaale ne ma ak buum nag day baaxoo ñaari cat ne lenn cat li mooy alxuraan cat li ci des mooy xasaayid yi ku ci téye ci lenn cat téye nga ci buum gi waaye ku leen boole nag yaa téye dëgg-dëgg buum gi sëriñ Muntaxa nag da leen a boole moo tax fu mu liggéey liggéeyub alxuraan yëkkati ca wet ga liggéeyub xasaayid yi liggéeyub xasaayid yi nag sëriñ bi moo ci jiital sëriñ Amsatu Mbàkke mu ànd koog mboolem ahlu xasaayit gépp sëriñ bi mu ngi soññee ci ndigalal sëriñ bi bëgg murit yépp waajal ko te fonk ko te jox ko yitte ndax sëriñ bi yàgg naa digle njàngum alxuraan ak njàngum xasaayit waaye nii ma ko santaane ak nii ma ko tërale mi ngi soog a am te sëriñ bi moom xam na li kon li nu war mooy li sëriñ bi digle rek ñu def ko maanaam jañ ak ñoddi moom nañ ko bàyyi ci loxoom moom sëriñ bi eh, amti kon luñ ciy fas mooy li sëriñ Moustapha wax rek mooy ñaanal ko moom sëriñ bi mu gën a wér te gën a mucc te gën fee yàgg la ca des lépp dañ ko koy delloo moom mu tànnal ñu suñu borom ndax lu mu tànnal moo gën ci ñun sëriñ Amsatu nee na mboolem daara yi ak daayira yi ak kuréel yi ak fuñ ñu mën a nekk ci goxi adduna yi mu ngi leen di jot li ndigalal sëriñ tubaa muy ndigalal jàng xasaayiti sëriñ tubaa yi njàngum xasaayit bi nag ni ko sëriñ bi bëggee gi yoon mooy kuréel gu ci ne fa nga ne nga defe ko foofe kuréel gu ci ne itam sëriñ bi dalaa delloowaat mbir mi ci sa bopp ngeen xool yéen ni ngeen ko mane ngeen waxtaan ci ba juboo seet waxtu wu wér woo xam ne dinañ ko tàmbali dibéer jii di ñëw waxtu woo bu jotee ñu daje fa jàng njàngum durus jàng njàngum yëkkati benn waxtu baa ñaari waxtu baa ñett luñ te juboo ñu def ko ñaan dem bu subaa ñu daje waat ci waxtu woowee defaat la ñu defoon di ko toftale noonu yi di ko toftale noonu ba dibeer jëkk ñu matal ko ca dibeer ja bu altine ñu bokk déglu sëriñ bi moom Cheikh mun Muntaxa mu tëj liggéey bi sëriñ Amsatu nee na noonu la ko bëggee ñenn ñu ci nekk daa dale ñu waajal ko seen bopp waaye li bëgg mooy waxtu wu ñu sartoo ba jàpp ko nañ xam ne waxtu woowee moom lañ jox seen Tuubaa waxtu woo jotee lépp luñ jàppoon nañ ko bàyyi daje fañ waxoon defe ko nañ ko waxe woon ñaan dellu bu subaa ñu dajewaat defaat ko noonu loolu la sëriñ bi bëgg nun ñëpp lu bokk ci maase defe ko noonu yi liggéey bi nag ñu fonk ko lool waajal ko lool yëg ko lool jox ko yitte ju kawe ndax ni ma ko waxee léegi rek sëriñ Muntaxa moom làmbatuwut waxal na boppam ne sëriñ Tuubaa am naa ci taw feex ku am tawféex nag ci nekk ci gannaaw kilifa gu mel noonu war ngaa fonk ndigalam te di ko fuglu kon ndigal laa ngi noonu sëriñ ba nga koy soññee bëgg bu dibéeree ñëpp tàmbali ko te saxal ko dibéer le 17 waaw ba dibéer ja dellusiwaat ci altine nag ci la ko sëriñ bi tëj kon day mel ne diweer jii ñu jëm rek ci la liggéey bi tàmbali hmm. na ko ñëpp waajal ñu soobu ci ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin teg ko ci loxol cheikh mamadul muntaxa mu teg ko ci loxol Serigne Touba mu defal ñu liñ bëgg waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh غيبك يا من قاد لي خير حياة شكرتني عند جميع جندك يا خير جار قد مكثت عندك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام